yitte ak seen i liggéey ngir xeexal démocratie xeexal itam ak ak yelleefu doomu aadama yi Ousmane Sonko la ñuy sàkku ñu daal di koy libéré détenu politique yi nga xam ne bëri nañu lool ci réewum Sénégal ña ngay sàkku itam ñu ñibbi ci seen ay kër lu ni mel nag fépp ci àdduna bi la ñu koy daal di nemmeeku jamono ji ñu toll nii ndax nag bëri na ci ay sénégalais yoo xam ni seen bëgg-bëgg mooy ñu gis Ousmane Sonko bokk ci ñi participer ci élection présidentielle yu atum 2024 opposition bi nekk ci réewum Sénégal di sàkku élection yu inclusive yoo xam ne dañ ciy gis ñëpp daal di siy participer bu ko defee ca février ka nga xam ne mooy tànn du kenn ku dul sénégalais yi yor seen carte d'identité seen carte électeur fas yéene dugg ci biir bureau de vote yi tànn kay nekk le cinquième président de la république du Sénégal loolee nag moo waral sénégalais yi nekk ca diaspora ba di xeex ngir Ousmane Sonko ñu daal di koy libéré ndax ñoom jàpp nañu ne élection présidentielle am ci réewum Ousmane Sonko di ci dal di participer loolee recul démocratique la ndax moomoomee bëri na ñoo xam ne ñu ngi topp ci ginnaawam ay junni junni doomi aadama ñoo am kóolute ak yaakaar jël ko teg ko ci moom tey itam bëri na ci ay sondage yoo xam ne la mu daal di wane mooy Ousmane Sonko mooy favori ci élection présidentielle yi ñu dëkkmal am na sax ñu naan mën na koo daal di gagné au premier tour mu nar a nekk nag ay jongante yoo xam ne yomb ci kenn koo xam ne da nekk ab candidat Sonko yëngu ci lu ñeel wàllum droit ñoom ñëpp nee nañu Ousmane Sonko ba tey jilee dafa conserver ses droits mën naa nekk candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 jàpp nañu ne Ousmane Sonko dara mënu koo teree bokk ndax amul benn condamnation bu définitive boo xam ne war naa mën a tax ñu daal di koy génnee ci liste électorale yi ba moom Ousmane Sonko du mën a bokk ci ña nga xam ne ñoom ñooy daal di jongante an la mbir yi di mujjee lépp dina leer du yàgg dara yi nga xam ne ñoo nekk ci ama am solo ngir interpeller la communauté internationale ngir ñu bàyyi xel mbiri Ousmane Sonko li des ci élection présidentielle bëreetul dina bokk du yàgg dara lépp dina leer AGT News. les manifestations interdites au Sénégal la relève est prise par les Sénégalais de l'extérieur notamment la diaspora sénégalaise qui multiplie les manifestations au niveau des pays étrangers en France aux États-Unis en Suisse et de nombreuses autres villes où ils se sont rassemblés pour dire non à la démarche de l'État du Sénégal

de la République démocratiquement. Elle sera la suite des événements. Vont-ils avoir gain de cause? Ousmane Sonko pourra-t-il participer à ces élections? Les spécialistes en droit qui l'accompagnent disent qu'il n'a toujours pas perdu ses droits. Donc il reste candidat car n'ayant pas une condamnation définitive, il pourrait l'empêcher de participer aux élections présidentielles de 2024. Sera-t-il candidat ou pas dans les jours à venir? Nous en saurons plus.